président Macky Sall euh, il a il a le Sénégal il commence à à, à goûter aux délices du, du du repos et de la pression qui eh, qui qui qui descend mais dafa am benn benn benn psychose bu am fii euh, y a des gens de l'Alliance pour la République yoo xam ne ils se sentent trahis ils disent président Macky Sall moom moo l'élection de de de de Bassirou Diomaye de Bassirou Diomaye Faye ñi jàpp ne Macky Sall euh, daf leen daf leen lâché euh, vous avez été porte-parole euh, du président de la République vous étiez dedans sans pour autant trahir des secrets lan nga leen mën a lan nga mën a wax ci loolu. mais moom la ce sont les Sénégalais qui décident à la limite c'est entaché. la victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye que de réduire des choses à comme ça on a fait un suffrage ah on a fait dañoo def élection ñu ne Sénégalais kan ngeen bëgg ñu jiite réew mi Sénégalais ne Bassirou Diomaye Faye lañ bëgg mu jiite réew mi à 55 pour cent loolu kay Macky Sall mënu ci dara au contraire Macky a fait son devoir de président de la République créant les conditions pour que l'élection soit inclusive def na amnistie comme ni mu doon wax fi neexul waa Pastef nag mais li may wax amnistie moom moo ko parce que bi mu koy décidé l'insurrection avait été vaincue les gens jetés en prison c'est le président qui par magnanimité l'a décidé donc c'était pour permettre aux Sénégalais de faire un libre choix de faire un libre choix maintenant Sénégalais à 55% ce qui est un, un score honorable dans une démocratie on dit que Bassirou Diomaye Faye lañ bëgg mu jiite réew mi loolu kay buñ buñ buñ xajamal victoire Bassirou Diomaye Faye di di di di accusé Macky Sall Sénégalais ñoom ñoo décidé comme on dit vox populi vox Dei quand le peuple se prononce il faut respecter le choix commentaire yooyu ça n'a pas de ça n'a pas de raison d'être le euh, ne trahit personne il ne, il ne trahit personne il a créé il a fait son devoir parce que li may wax l'amnistie bi c'était pas populaire mais un homme d'État comme Macky Sall sa préoccupation c'est pas est-ce que populaire na wala d'accord na sa préoccupation c'est de penser aux futures génération te jii Sénégal yi ma ñëpp ñëpp ñëpp kontaan nañu ci mm-hmm. jàmm neewul ñooy mm-hmm. ñu jox ñi lenge yi jox man la man la man la léegi jox nañ la ngay ñoom ñoom nañ dawal situation bi ñoom Sénégal yi moom lañ moom lañ bëgg peut-être bi mu jël amnistie bi c'était pas populaire ñu bëri comprendre ñu woon mais li mu waxoon tey jii loolu ma intérêt Sénégal bëgguma génn Sénégal bàyyi fi ay tension bàyyi fi ay désordre li ma bëgg bu ma jógee Sénégal que Sénégal continue wéy comme li ma waxoon rek président ay fay li Oustaz Sall di wax te ngeen foofu seen baaraam <laughs> boo bëggee gagner temps da ngay nekk le deuxième de modernes après Macky Sall ba Macky Sall te kon baaraam nga continuer fa te bañ a topp ñii di lay di lay divertir ci euh, ay affaire ci ci ci ci affaire ay assises de la justice ay réforme des institutions ki à mon avis c' est une perte de temps le seul risque je le répète bi Sénégal di encourir mooy une perte de temps Macky Sall dafa defoon 2014 PSE ni Sénégal day émergent 2035 boobu lu ñu amoon gerte ak phosphate juillet am Antoine Diome wax na ko juin wala juillet Sénégal dina am pétrole premier baril de pétrole donc pour ñu bañ a tardé il faut ñu concentrer nos énergies sur ça pour que li Macky Sall waxoon deux mille trente cinq ñu ñu koy wàññee ba deux mille trente wala deux mille vingt neuf